assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk internet yu football TV nuy naa leen bu baax jeex len di am mbégte saa su ne defal leen vidéo juste vidéo bi ne damay ñëw euh xam ben entretien bu xamantene ki kii amale na ko Kalidou mu wax lu bari xam donc mu wax na ci ay point bari wa dafa am benn point bu xamantene daf ko soulever ma gis ne c'est intéressant euh def ci vidéo vu que temps yi vidéo yi c'est rare hein, xam nga sur football TV mais lepp dina ñëwaat incha allah gars du coup moom dafa lancé benn message man noonu laa message laa ko jàppee donte wax na si euh, wax mooy euh, bi si biir nationaux yi nee na moom dafa rëccu mu ngi fi ñëw à l'âge de vingt quatre ans mais dafa rëccu ñaari at yi mu ñu ngi toppoon ci ginnaaw di wax ak moom mais nee na c'est normal a jouer mais bu ñu xoolee na te pourtant vingt quatre ans la fi ñëwee mais rëccu donc loolu muy wax foofu nag mu ne boy ku si mën a ñëw ñëwal de fii ku fi mën a ñëw ñëwal xam nga donc moom dafa regretter carrément xam nga dafa naa benn vidéo na ma ne Nampalys Mendy ak Bouna Sarr boo xoolee seen i kanam man damay dem entraînement des Lions quoi damay dem entraînement des Lions ak émission wala entraînement des Lions ak yëpp mais boo xoolee seen bët ñu gis leen ni ñu nekkee foofu am enthousiasme bi ñu am ree kaf xam nga gis ni dañu regretter ñu heure ñu fi ñëw parce que ñu kenn nekk am na vingt neuf nekk trente nii danaka xam nga gis heure bi ñu fi ñëw te Kalidou Koulibaly moom fi ñëw 24 ans et pourtant moom moo ngi regretté li mu fi ñëw 24 ans moo ñu fi ñëw 22 ans parce que Sénégal mu ngi ko doon wax si jamono boobu donc ñun tamit nañuy comprendre même Kaldi Kalidou ak maître na ne toog ne deux ans ñu toog di wax ak moom moo tax souvent gars yi bu ñuy wax jeudi yi kii dafa soof kii dafa mel ni bu ñu topp si kii même Kalidou Koulibaly bi xam ne dañ ko bëgg suñu xol lool mu béggal ñu nekk suñu capitaine waxtaan waxtaan nañu ak moom 2 ans laataa muy teg fii tànkam

et après histoire ndax kii moo waxoon lii defoon na lii dafa xaaroon lii dañ fàtte comme Kalidou Koulibaly instant bu ñu ko expliqué ñun dañ siy da koy wax avec mais nice ba pare moom dafa am compréhension propre ak yeneen kii euh, kii du Abdou Diallo bi expliqué noonu lay wax mais nee ku nekk ak histoire ku nekk sa histoire donc ku nekk sa histoire il faut que aussi tamit ñun ñu respecter ku nekk sa histoire ndax sa papa sa yaay moo la moo moo la yar ndax sa papa moo la yar ndax mos nga fi ñëw vacances ndax am nga ay relation fii nii loolu yëpp c'est bëri na ay critères yu xamante ne mooy tax jour bi mën a déplacé wu ñëw ba tax na moom la dafa envoyé un message fort ku mën a ñëw ñëwal tu ne vas pas le regretter maanaam lu yàqal dara si carrière défenseur mënoo gën a rëy Kalidou Koulibaly jamono bi amul benn défenseur benn benn bii national boo xamante ne moo gën a ëpp niveau Kalidou Koulibaly mënoo ko wax keneen kom mu fi kiiwal tamit ngay xaw a méngóo moom rek waaye Kalidou Koulibaly ñun ñëpp Sénégalais yëpp xam nañ ni niveau bu sax Napoli donc Kalidou Koulibaly fu mu mënee taxaw Sénégal te moom jàpp na yàqal ko dara mais voilà ak Coupe mu jëlee et tout donc c'est message fort pour yéen xamante ne dañuy booy xam dañuy hésité nangam nangam damay xaar damay nangam nangam donc voilà mbokk yi dama ne woon dinaa ko partagé ak yéen di wax na rek bu leen wax dara incha allah vidéo yi dinaa ko enchaîner sur Senfootball TV maa ngi leen di jaajëfal wax ba beneen. আসসালাম